xasaraat yi li ma ci njëkkee tey mooy mbóot mbóot ci gént jàppal ni ci li bon ci gént te baaxul ak quatre-vingt-dix-huit pour cent ci ñëw ci benn benn mbóot ci sa kër euh, mbóot nag yu bari dama lay wax jigéen lii góor lii mbóot daanaka ñëpp ñoo bokk li muy firi ci ñoom moo tax ki may li may njëkkee képp koo xam ne da ngaa gént gis mbóot ci sa néeg baaxul dafay firi musiba day firi jafe-jafe day firi problème boo xam ne dafay jóge benn ci sa xarit walla mu jóge ci sa dëkkandoo wala mu jugee ci koo bokkal fan maanaam problème boo xam ne day jógee ci ñett yi kenn kon baaxul da nga faral di géntu mbóot muy répété wu ci lu bari ngay chaque jour ngay répété looy faral di géntu mbóot lu bari baaxul ñaari fii la am bu njëkk bi la la waxoon day firi séq ak nit lu añaan benn waaye firi bi gën a baax te gën a wér day firi ñaar yi benn cat ci sa yaram walla liggéey ci sa yaram géntu mboot lu bari foo ko dee def wutal muslaay ci ñaari mbir benn bi mbiru cat wala mbiru liggéey benn ci ñaar yi nekk na ci sa yaram danga géntu mboot si la wala mu matt la am na lu matt nga xool leen nga gis li la matt daal euh, mbóot la day firi ay problème day firi ay xat-xat sa dund mbóot bu am couleur bu weex day firi xarit boo xam ne fexekat la da nga gént gis benn turu turu bi ci miir la nekk wala benn turu ci sa canapé gis nga daal benn turu boo xam ne ay am na ay mbóot yu génn ci turu ba baaxul naka noonu dafay firi ay noonu mbóot boo gént gis mu dee danga doon dox rek gént gis mbóot bu dee day firi mucc ci liggéey mucc ci cat mucc ci pexe nit ku mën a doon wala pexam seytaane lu baax na ci gént mbóot bu dee su fekkee yaa ko rey gis nga mbóot bi nga rey ko kazalika baax na day firi mucc ci paxe mucc ci xat-xat mucc ci yi ma sànq noonu mucc ci cat mucc ci def-def walla pexam seytaane wala pexe nit da gént gis ay mbóot ci sa kaw laal baaxul mbóot ci sa kaw lal baaxul day firi tolof tolof ak xat-xat ci sa kër surtout jigéen ku nekk ci néegu say wala góor gu am soxna day firi réeroo yu tar mbaa jafe-jafe yu tar ci sa néegu say bu dee ko amul soxna kazaalik baaxul day firi jafe-jafe xat-xat ci kër wala ci lu mën a doon naa la sànq mbóot bu dee baax na mais mbóot bi dafa dee ci biir gént gi dundaat ci biir gént gi wala rey nga ko ba mu dee nga jékki-jékki gis mbóot bi doxaat baaxul day firi jafe-jafe bu la romboon bu yàgg wala jafe-jafe bu jeexoon day ñëwaat euh, da gént gis mbóot boo xam ne danga nga ko da ko ragal ci biir gént gi wala gis ay mbóot ci biir gént gi nga tiit naka noonu baaxul day firi yow sa jëm bopp nga nekk nit koo xam ne amuloo amuloo force wala kàttanu mën a jàmmoonte ak situation yi ci jamono yi muy difficile loolu rek lu ñëw ci yow da feebar ci biir feebar yi nga gént gis mbóot naka noonu baaxul day firi feebar bi nga la jàpp liggéey moo ko def wala feebar bi la jàpp bët la kon mu ngo da gént gis ay mbóot ci foos wala ci sa duus nga gént gis fa ay mbóot walla ci sa toilette maanaam ci sa comment dire euh, euh, siège anglaise walla ci place bi ngay demee bi ñu demee toilette ci douche bi nga gént gis fa ay mbóot yu bari baaxul day firi liggéey ci sa kaw liggéey bu la jàpp ci sa yaram kooku it laaj la ñaan pour toj liggéey euh, da nga gis benn mbóot rek bu mag day firi seq ak kàccoor mbaa ab saay-saay boo xam ne dina la wor euh, mbóot ci couleur couleur bu ñuul kukk ba jéggi dayo baaxul day firi noonu wala nit ku la jege ku añaan euh, voilà xale bu jigéen bu amul jëkkër nga gént gis mbóot bu ngande lool ngandam mbóot bu rëy baaxul day firi góor buy def ay pexe yu man pour jot la moo xam takk la moo xam bu mën a doon waaye alaakul yàlla lor moo ci mucc da gént gis mbóot yuy dox ci sa kaw yaram ci sa kaw yére naka doon dafa bokk ci gànd gàllankoor yi firi euh, cat ci sa yaram mu ngo gént lekk mbóot baaxul day firi benn feebar wala ñàkk bu tar mbaa ay bor mu ci mën a doon këru ñu ngi leen di fàttali ne képp ku am gént dugg leen ci page bi ngeen recherche gént bi bu fekkee da nga bëgg a firul téléphone euh, par téléphone ku ko bëgg tam mën a ñàkk yaakaar naa ne na ngeen recherche gént yi bu leen ko bëgg a firul téléphone 2000 francs ngay fay ba noppee nga am nga woote téléphone ñu soxla def listixaar aussi mën ngeen jokkoo ak ñun euh, da nga gént gis euh, place bi ngay lekkee alhamdulilah ngeen baal ñu wax sa table à manger la wala fi ngay añee walla ci sa waañ nga gént gis fa ay mbóot yu bari baaxul day firi ay tolof tolof ak xat-xat ci sa dund yu tàgg da gént gis mbóot bu xonq bu rouge rouge bu fës ci xale bu jigéen ba amul jëkkër ñaar neenam dana firi jëkkër waaye day firi jëkkër joo xam ne daanaka euh, càll lay sant rek du bari njëriñ da gént sa gémmiñ ci sa biir gémmiñ nga gént gis fa ay mbóot day firi yow nga nekk ni ko xam da nga jël ay décision yoo xam ne yëpp échec nga ciy jëlee wala ay jafe-jafe kon balaa ngay jël décision del xalaat wala balaa ngay waxat yi ngay si bu baax jigéen ji ëmb gént gis mbóot baaxul day firi benn jafe-jafe ci sa ëmb wala jafe-jafe ci sa doom yàlla nañ ci yàlla musal kon waxoon naa lañ ca départ bu ne leen mbóot daanaka lu bon la ci gént ak quatre-vingt-dix-neuf pour cent fi mu bonee rek fi mu baaxee rek def naa wax naa leen ko mooy gént gis ko mu dee wala nga rey ko ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu